salaamaaleykum mbokk yi ma ngi am mbégte ak contenté ci partager yi ngi ni partager vidéo yi may dugal tay nak damay sakku ci yeen vidéo bi ngeen partager mako seen kem katan bul xeb mukk partager bi ngay partager vidéo bi dom pat sax ci sot la bokk tay nak mbokk yi damay and ak yeen ba manar muy dëkk bo xamni dëkkub la waye jamono ju nekk dañoo jambat ci man njàmbat go xam dama dem ba ci ak ma xamni li julit jullit war nañ ci jot ba xam njàmbat gi lu mu doon nak mbokk mi fi nga gis ni ma fi dugg ni moy neegub yalla bi nga xamni ni nekk ci dëkk bi fii mooy seen jàkka ànd leen ak man ci vidéo bi. kon jàppale sa jàkka ji lañu bëgg parce que fii su naaj wi tàngee mënoo fee julli su nawetee itam mënoo fee julli am na yenn heure yi nga xamante ne mënoo fee ñëw it di julli waaw ñun daal loolu mooy suñu yitte def naa te ay jéego nag def naa si ay jéego jéego fu ne dem naa fa pour ñu jàppale nu si te ku ñu jàppale si néegu yàlla ji day sa bopp rek ngay jàppale waaw ñun daal lii mooy suñu soxla mooy sunu bebet, mébét ci jàkka ji mhm. fii keruk kërug diine la mhm. yàgg nañ si diine yi mhm. biñ juddoo ba léegi fi lan fi fekk eh, eh, kii eh, diine léegi nag bi ñu sax fii jàkka ji yàgg ñu kaa def ay saket waaw waaye at yi lanu mobilisu nun yi ñu def def ko saket kon mbokk yi ñoo ko gisandoo waaye tamit ñoo ko wa waa kër maanaar toll ci fukki kër ak ñaar benn jàmbat képp lañ am maanaam ku leen tabaxal néegub yàlla buñ mën a waxtu mbokk yi na nàññ kon képp koo xam ne gëm nga ni ku tabax jàkka ngir yàlla yàlla tabaxal la sa kër ca aljana maa ngi lay woo ci liggéey bi su fekkee ni mën nga koo jël en charge ñu defaral leen jàkka ju normal su fekkee tamit loolu diis na ci yow nga jël sa barkeelu nga dugal ko ci 77 314 52 20 tur bi ci nekk mooy Basirou géey bu ku nekk barkeeloo rek ñu dajale ko defar jàkka ji incha i ci fii jamono toll. Mhm. Eh, nga xam ne xale yi ñoom wax nañ ni ñoom ñoo mobilisé wu def ko nii ay sàkket. Mhm. waaye nag lot nañ ci lu ne ci kaw. ba su dee taw ñu mën a nekk ci biir di jaamu yàlla. Mhm. bu naaju tàngeet aussi ñu mën fee nekk di jaamu yàlla. te itteel na leen comme ni ko Mbisaan waxee jooy dina ci ay ndimbal ba tey yàlla dogalu ko. bi ñu yëgee loolu yëpp na ci dañuy def ay jéego mhm. eh, fii fun di tàllal loxo képp kun yaakaar ni mhm. eh, boo jotee mhm. jooju ittee saafarawu daal ñu ngi ciy tàllal musulman yi loxo di ko jaari sëñ Basiiru Gey Albatrik yu mii daal mu jot na ko ci jullit yëpp yàlla na ko yàlla sottee jàmm xaw ma dinaa ko fekki hmm. xaw ma duma ko fekki dinga ko fekki incha allah ah tànk gi hmm. tànk jàmm laa yàlla na ngeen koo yàgg a lijjante te li ngeen di jublu mu jub incha allah en tant que gi ngeen dox nag yàlla na dem kanam amiin ndax man di demam fen waaye nag ñi fi war a dem lijjante nañu bu son waaye tànk gi mel nii masuñu koo gis alhamdulilah kon nag yàlla na tànk gi na suñu njëriñ noonu ñëpp incha allah na ngeen taxaw yàlla yàlla dimbali leen kon mbokk mi yow mi doon laaj fooy jaar pour liggéeyal yàlla yoonu liggéeyal yàlla bu gaaw a ngi nii jàkkay kër maanaar na kenn ku nekk barkeelu ñu defaral leen jàkk ci nu mu gën a gaawee balaa nawet bee ñëw ku bëgg a dugal sa wërsëg mën nga koo def ci 77 314 52 20 Basirou Gueye jërë ngeen jëf